bi ma njëkk a lim plutôt muy kon euh, sport ñu ci ànd ak coach. man de xam naa ne man <laughs> man moom damay sonn sama bopp rek. xam euh, euh, xibaar bi démb depuis samedi le xibaar bi daanu mooy que tey dañuy wax ci Sadio mhm. pourquoi ñu. parce que Sadio Mané. dafa def benn euh, jaloore bu ñuy wax jaloore parce que euh, dafa battre record wu Demba Ba ci meilleur buteur bu championnat Angleterre le Sénégalais. du ëpp lu mu dugal 44 buts. Euh, Sadio Mané booy xoolaat rek dafa mu ngi ci année et dafa nekk ci année boo xam ne. année wu Sénégal la dégg nga euh, la Sénégal day dem coupe du monde te mu nekk euh, joueur wu euh, Sénégal ba mu dox la preuve équipe am Liverpool qualifié na demi-finale qualifié na demi-finale li nga xam ne mooy Ligue des champions c'est le deuxième Sénégalais boo xam ne moom day jouer Ligue des champions xam nga Ligue des champions. ñu ci bëree. c'était qui le premier. waaw kii euh, dégg nga euh, buñ koy xoolaat parce que kii moo demoon euh, ba final kii dem na jouer na ba final kii coupe de Roger Mendy. d'accord Roger Mendy dem na ba final. Uh-huh. comprendre dem na ba final Monaco dégg ci beneen ci beneen trophée la kon euh, bu ñuy xool Roger Mendy ci trophée Europe yi. Mhm. Roger Mendy moo gën a yéeg dégg mhm. Ah? Mhm. Euh, euh, moo gën a dégg ah moom moo gën a yéeg. moom moo gën a sore parce que final coupe d'Europe la. d'accord qu'on se dise la vérité c'est le sénégalais bi nga xam ne moom moo gën a kii ba tax na Sadio Mané tey jii Demba Ba moo ëppale woon li mu dugaloon. mais léegi euh, Sadio Mané ñëw na 44 bi mooy samedi bi muy dugal euh, butam boobu. Mhm. boobu la nag baata ko. Euh, xam nga dafa am loo xam ne dafa am solo ci footballeur mooy distinction individuelle et puis tamit xam nga boo demee ba nga xam ne nga nekk meilleur buteur. sa valeur marchande day am solo euh, buñ ko ñaanalee jàmm parce que euh, ñaanal ko euh, jàmm ko moom mooy ñaanal ñun Sénégal mm-hmm. muy année coupe du monde ñaanal ko Liverpool dem parce que tey ji jii ñëpp Sénégal dañuy ñaan Liverpool dem final jël Ligue des champions waaw loolu lañuy ñuy ñaan moom moo tax parce que moom moo tax moom c'est le seul du jeu demi-finale mm. nekk meilleur buteur Premier League championnat d'Angleterre c'est pas facile. Mm. Sénégal yi booy xool Sénégal yi fa joué yëpp moom moo ci ëppale lu mu kii ba euh, nekk na loo xam ne nag euh, mën na ko motiver lii actuellement nii mën na ko motiver mu def coupe du monde bu baax. d'accord et bu defee coupe du monde bu baax. Mm. loolu c'est un avantage euh, waaw du Sénégal ba tax na leneen mu ngi nii Sadio Mané. Euh, nekk koo xam ne euh, man li ma ci euh, neex ci Sadio Mané mooy que Sadio Mané booy xool 2012 ak léegi ça fait six ans. 2012 hmm? Sadio Mané était dans l'équipe nationale espoir du Sénégal à Londres Jeux Olympiques Jeux Jeux Olympiques Sadio Mané na coupe du monde. Sané est dans le club le plus populaire en Angleterre mooy Liverpool boo xoolaat da ngay dégg Manchester United waaye Liverpool fait partie des clubs les plus titrés en Angleterre même en Europe mm-hmm. kon nag Sadio Mané aujourd'hui mu ngi ci ANEM ci ANEM la nekk euh, mu ngi def yoonam au niveau de euh, Liverpool Sadio Mané booy xool. carrière am dafa mel day def nii parce que fi mu jaar yëpp la des club yu mu jaar euh, bii mooy troisième club am euh, quatrième club am en Europe après Metz dafa jaar Metz après dem euh, kii Red Bull jógee foofu ñëw dégg nga mu ñëw fi nga xam ne dina moom mooy équipe bi nga xam ne moom mooy en Angleterre bi mooy deuxième club am en Angleterre kon nag anem la mais euh, boo xoolaat chance bi mu am chance bi euh, Sadio Mané am moom mooy euh, Sadio Mané dafa jaar centre de formation mënuñu wax te duñu tudd génération foot tey le Sénégal le foot génération foot voilà moom foofu la génnee ba donc euh, xam naa ne. au-delà de chance boobu également cet comportement bi mu am en tant que sportif. ça l'aide beaucoup c'est-à-dire doo ko dégg ci yenn frasques doo ko dégg ci euh, yenn bêtises entre guillemets yi nga xamante ne moom la yenn footballeurs yi di def ba bu ñu xaw a demee ba yegg au sommet da ngay gis dañuy am euh, déclin. voilà c'est surtout sa force Sadio Mané nekkul koo xam ne day day day xam nga dafa am façon nit yu mel noonu Sadio Mané. c'est c'est un gosse très gentil pour être honnête. Mhm. gentil ci naka mooy euh, amul problème ak kenn même euh, journaliste bu ñuy nii regroupement équipe nationale nii n'a pas problème il n'a aucun problème. Mhm. dégg nga y'a aucun problème moom mooy que euh, doo ko dégg ay coow ak dugul fii dugul fële dégg et même Sadio Mané. Euh, il est très réservé dafa noppi bokkul ak waxkat yi ay wax nii ay nangam noonu et pourtant mu ngi am na am na am na lu koy metti mais doo ko dégg mu muy wax mhm. ba tax na c'est vrai comme ni nga wax moom bokkul ci yenn yi ah euh, Liverpool bu ko neexoon moo gis boppam parce que mu ngi ci club bu club bu rëy il marque des buts mhm. dégg nga il fait kii bu ko neexoon waaye defu ko am na hygiène de vie. am na hygiène de vie il vient en équipe nationale dañ il vient en équipe euh, def mais c'est que lenn rek moom mooy euh, li gars di coow te il faut ñu wax ko mooy que sénégalais yi la majorité la majorité sénégalais dañoo jàpp lenn ne Sadio Mané euh, li muy joxe Liverpool du ko joxe en équipe Roger Mendy. nee na Sadio Mané on ne l'aide pas en équipe nationale n'a pas de bon euh, amul ay joueurs yi aidé wuñu ko mais tamit est-ce que aussi l'entraîneur aussi l'aide parce que y a aussi cette question là boo nee joueurs yi ñu koy boole kii mais euh, euh, boo gisee yenn joueurs yi comme par exemple Lionel Messi entraîneur bu de day jéem a xool ñan ñooy pour day jéem a xool. pour gars yi adapté wu ci Lionel Messi est-ce que Aliou Cissé wala ñi jaar équipe nationale est-ce que ñu ngi jéem a xool pour ci moom y a ça aussi parce que Messi euh, Guardiola wax na ko bi mu koy yore nee na il faut que nit yi di adapté wu day indi benn système boo xam ne dañuy adapté wu ci Messi euh, Valverde entraîneur kii loolu la wax. Zidane loolu lay wax ci Cristiano Ronaldo boo amee jour boo xam ne dafa nekk euh, au sommet te nga xam ne am na lu muy joxe fale da ngay jéem a tam xool loolu fi muy joxe ni muy def ba joxe foofu ah man boog sama xalaat mooy da ngay jéem a tamit def noonu boo bëggee mu joxel la parce que là-bas quand il marque des buts et dans le match il est virevoltant mu ngi fu nekk mu ngi nangam xoolal tamit naka nga koy. dugal ci benn système boo xam ne dina mën a gis. d'accord man je pense que c'est ça aujourd'hui le point bu Sénégalais yii di wax ne que kii il n'est pas dëgg la mais il n'est pas fautif à 100 pour cent ça dépend comme ni ko Roger Mendy di waxee des joueurs et moi si ma yokkal ko li aussi il aussi est-ce que l'entraîneur mu ngi koy teg ci benn euh, kii boo xam ne dina ko permettre moom tam mu nekk à l'aise ñii nee nañu. Euh, euh, Sadio position bu mu nekk à Liverpool nekk ko en équipe nationale. est-ce que manqué wul fii euh, suñu équipe nationale bi manqué wuñu complicité bi nga xam ne moom moo amoon par exemple ci équipe bu 2002 bi nga xam ne euh, bu weesoo le fait que ñu nekk ay coéquipiers c'était également des amis. waaw xam nga euh, peut loolu peut-être dëgg la peut-être parce que ki mu yàgg di jouer moom mooy Moussa Konaté. la gën a yàgg di jouer à l'équipe nationale. Mm. mais euh, est-ce que ça marche Liverpool euh, Liverpool kii euh, euh, Sadio Mané à Liverpool boo koy wax xoolaat il s'entend bien ak Firmino il s'entend bien ak Salah. caa bi mm-hmm. parce que booy xoolaat match bii ñu joué samedi but boobu da ngay xool complicité bi ak Salah. bal bi muy jox Salah occasion boobu Salah di rate mais moom la xam nga complicité boobu. mais coach est-ce euh, le fait que il passe beaucoup plus de temps foofu que tey équipe nationale parce que équipe nationale euh, c'est pa moment ay campagne su amee ak yi ni la ñuy. fait temps bi nga xam ne war na ko miin sur le terrain si seen système de jeu pour ñu déggoo ko pour mu am benn complicité bi day yàgg par rapport ak Liverpool nga xamante ne chaque semaine y a match tout le temps ils sont ensemble aux entraînements ak yooyu est-ce que loolu indiwul euh, performance yi nga xamante ne moom lay am euh, foofu Liverpool que fii sans que yaa ngi doon wax itam si wàllu Euh, ñu adapté wu ci jeu wu ki nga xamante ne Sadio Mané pour permettre performance am euh, gën a fës. waaw loolu mën na am loolu mën na am euh, parce que koy nekkal chaque semaine ak koy nekkal par mois par trois mois boo bokkul. Mhm. mais tamit xam nga ça dépend tamit ci système bi nit mën nañ ko boole ak nit. mais système boobu moo lay pousse nga yow nga déggoo ak moom système système daf koy def système de jeu day tax ñu jël ñaari nit dégg nga ñoom ñu am complicité. par exemple soo xooloon Pape Bouba Diop ak euh, Henri Camara mm-hmm. dafa a benn complicité complicité bu extraordinaire bu doxoon euh, seen digg ku ci yëkkati ba rek di nga xam fan la jëm. Mm-hmm. mun nga ko daw dabi wala des de ce genre. Mm-hmm. de ce fait pour loolu répercuté wu par rapport ak Sadio. naan également aussi day doon benn bu fekkee ne musuñu par exemple nekkandoo ñu woon génération foot wala dara benn complicité bi ak benn système jeu bi pour ñu xamante ko day doon loo xamante ne lu lu jafe lay doon ci seen diggante. waaw mais xam nga mooy li ma lay expliquer rek euh, par rapport loolu euh, xam nga Sadio Mané euh, maanaam amoon na ay joueurs yoo xam ne 2012 ñoo nekkoon en équipe nationale. mais booy xoolaat ñu ci bare nekkatuñu au top Moussa Konaté ñu ñu nekkatuñu en équipe nationale mais au fur et à mesure ñu ñëw équipe nationale yow entraîneur bi yow yaay yow yaay jël euh, maanaam di boole ñaar nit pour ñu mën a di nekk man je pense que comme ça. Mm-hmm. bon mais euh, l'un dans mooy que euh, forme bi Sadio Mané am. c'est de bon outil. Et aussi pour euh, performance yu ni mel sur les écoles de formation. Mm-hmm. parce que mënuñu ne am nga don kese mais dañ koy jàng itam bu ko nit ñi di fàtte bu ñu yaakaar ne rek eh, football mbedd d'accord dina la yóbbu fenn fi mel ne am na au niveau xam ne soo fa tolloo li ni mel day feeñ ku jaar école de formation ak koo xamante ne formé dans le tard. mais mais euh, xam nga euh, centre de formation yi booy xoolaat tey jii cette équipe nationale que tu vois là les mille euh, maanaam euh, ñu ci bare dañu jaar centre de formation. Mm-hmm. ñu ci bare. Mm-hmm. dañu jaar centre Xaadim Njaay bi di góor bu gars yi fàttali jaar euh, Saint-Louis foot centre mm-hmm. nga ñëwaat ci kii bi joueurs yu bare dañu jaar centre de formation tey centre de formation yi c'est ça. loolu moo tax suñu dirigeants yi dañu waxoon xoolaat seen bopp mooy exiger imposer nos clubs comme en France ñu am ay centres de formation mais non on a laissé les centres de formation nekk ay clubs ce qui n'est pas normal te soo xoolee euh, en Europe mhm. euh, kii yu euh, club yu mag yëpp dañu am ay pépinières fii léegi fii léegi loolu maanaam mu ngi commencé di disparaître club yi nga xam ne dañ daan def ay euh, seen petite catégorie dafa aayoon bu njëkk ba aayatul Chia. Diarra Gorée. avec Henri Camara. voilà ñooñu seen seen seen petite dafa baaxoon mais léegi non non mais lu koy réglé waat moom mooy que les les les les les clubs traditionnels. am ay centre de formation. ñoom ñoo war am centre de formation. Mhm. ñoom ñoo war créer ay infrastructures ñoom ñoo wax a def loolu. te ñoom bu ñu ko defee tey jii di nga gis et là maintenant on aura. Euh, on aura de bons jours. loolu la woon loolu laa amoon lu may indi woon Sadio Mané ñaanal ko rek jàmm.